coow li nag li ko indi mooy bande filao bi yëpp ba bu tomb li ko dalee Golf ba Nigéria ñëpp xam ne forêt classée la woon état bi téeloon ko boppam doon fi aaye ay dëkkuwaay mais bi état bi jàppee ne war na koo déclassé maanaam war na koo toxali ci forêt classée def ko ay dëkkuwaay président de la république ñu koy salué passage ko ñaanal jàmm ak ci yërmande loolu nag man li jëntiwuma ko parce que état ci boppam moom mi moom moom mooy wax diw doxalal ma teg ko ci anam yi teg ko ci anam jàpp naa ne bu ñu juumoon état ba leen sant dina jóg jubanti leen man nag ma bokk ci état ci démembrement état donc war jàppale état tant maa ngi jàpp ne li ñuy def méngoo na ak sama gis-gis méngoo ak sama yëg-yëg méngoo aussi tamit ak njëriñu askan wi dama ciy jàppale état parce loolu képp koo xam ni conseil municipal la bëgg nañ mu am ci parcelles yi ñooñu ñoo ko dogaloon boobaak léegi mat na ñaari at mais ñun ñëpp ñu bokk ci am ba ñi ciy wax nii am nañu si nekkoon ay conseil am nañ doxalin woowu àndoon nañ ci xel nanguwu ko donc bi comité boobu délibéré te mairie bi fekkewu ko ndawal mairie bi fekkewu ko ñoom ñiy coow am na luñ ci am dégg naa sax ñu noonu loolu débat mais débat la war a nekk